ayca jërë ngeen jëf mbokk yi ba léegi ñu ngi toog ak ki nga xamante ne bii moom mooy njaaxum di euh, champion dëkk Bawol ñu gis samedi passé mu bëre fële ca arène national wala dimanche passé mu bëre arène national ci combat bu mag bi mu doon bëre ak digganteem ak tonnerre ñi doon bëre grand combat bi moo nekkoon Tapha Tine ak ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier champion gannaaw ban la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo. ngi lay fay. ginnaaw bi ma sant yàlla juli du ma sab sama ñaari waajur maa ngi nuyu Bawol gépp di nuyu midinaa gi ma dëkk Rue Thérèse di nuyu waa Rëbës gépp sama gars yi foofu surtout ma waa garam place bi xam ne combat bii danoo dajale xaas bu bari jox ma ko te ñooñoo xam nga ne ñooñu bu na ko defee rek pour nga am ndam moo tax yàlla dogal lii mais nag da leen di sant bu baax di nuyu sama nijaay ji wa ngumba nuyoo bi ma koy teg ci loxooy président Mbengas Ndaara Fall Khadim ñoom ñëpp maa leen di bége nga doon bëre ak euh, ku ku ku la jiitu ci làmb muy ki nga xamante ne bii muy muy muy Tonnerre yoonu làmbam xaw a yeex tuuti boo ñu doon ñëwalaat ci combat bi nga bëre keroog. waa combat bi ma bëree keroog. tey bu sama xel delsee ci bi ma daanoo sama xol sama xel ci moom la delsi parce que li tax mu delsi ci moom xëy na moom bu làmbam naqar woon du bëre ak man. waaw parce que moom ma jiitu ci lam njëkk ma ci fuuf mais xëy na dama daanu ma jógu ma daan ne man ki ma daan ci defet la jóge te moom a njëkk ci lam te xëy na lamam ju naqari tax moo tax ma kon damay dellu rek ma sant yàlla waaw kon daal ci moom nga xool dafale sa bopp waaw ci moom laa te waaw boo bëggee dëgg rek moom ci moom laa xool waaw parce moom daanaan la Tonnerre daan na la kooku dul gàcce parce que am na fi ngoon gu ne daan na ku ne itam kon tey su ma moom tey mu daan ma damay jógu sant yàlla ànd ak samay mbokk rek pare waat bu ñëwaatee ci combat bi li nga bëri koroog tey bu ma la doon laaj lan moo la daane lan nga may wax. waa Modou Saliou man li ma lay wax li ma ci jàngat ci li ma daane mooy war a daanu daanu. parce que waaw ginnaaw war a daanu. du ñàkkul erreur yoo def ci ginnaaw war a daanu. Hmm. maanaam lu ko fekk ci maninam mooy laan muy xeexeexu mbër te njaaxu moom xam. xamoo ko ci xeexeexu mbedd moom day benn benn combat am waaw xëy na xëy na waaw xëy na bëre noonu heure bi soufflé noonu mu dox ci sama kaw jàpp sama loxo ñu daal di korante xeex noonu génn mu ër mu ërtal ma xeex man xeex duru xeex droite ma ma fekk si keeg moom xëy na man boobu erreur laa def waaw. Hmm. kon remarqué na nga remarqué nga ne erreur boobu. waaw bu baax parce que laata may jóge lam ja di ñëw laa ko seetaanaat sama appareil. ma xam ne man erreur boobu laa def dama koo fekk si ci maniinam xeex moom gauche droite. mu yegg ma foo xam ne waruma faa ak daan ma waaw ma koy ma koy félicité te di ko wax ne sunu grand la lamb noonu la itam parce que xëy na tase na ñu ko gën a doon xale xëy ñoom bëri ñoom daan leen mais tey Tonnerre ma daan loolu yàqu dara ci sama carrière damay nekkaat takkuwaat balaa saison bi ubbi incha allah rabbi ma jéem a amaat combat génn ci waaw. gannaaw ba nga jógee ci Tonnerre bët set nga reprendre say entraînement. waaw bi ma jógee ci Tonnerre bët set. bët setaat laa ñëw commencé waat samay entraînement gis nga da ngeen maa fekk may physique nii kon nga xam ne man pare wu ma woon pour Tonnerre rek man comme li ma wax rek chaque jour dama naa la man saison lay pare te loolu samay entraîneur xam nañu ci dara xëy na saison lay pare daan na ma maa ngi ci instant li sama bët fi mu teg mooy li ci kanam mais li ci ginnaaw moom passé naa ko jàngat bi ma ciy jëlee jàngat jëlee naa ko ci mais li ci sama kanam lay xool man sama combat ak Balla Gaye senior kooku moo ma def champion parce que moo ma daan bi ma daanee 2010 la ma daan boo xoolee 2010 ba tey defaat naa fi ñaata combat bëre naa fekk Boy Naar Fall bëre teg Yaro Baax bëre fekk Boy Faye bëre fekk Baara Ndiaye bëre fekk Aline Diop te lépp yàlla damaa suturaal may ndam kon kooku noonu moo ma def champion mais tonnerre. moo may defi ndaanaan incha allah rabi. moo lay def waada waaw parce que combat boo jógee da nga ciy jàngat parce que jàngat naa ci loo xamante nii su ma ñëwaatee incha allah sama combat du ma indi loolu waaw. fan nga teg sa bët yan champion ñoo nekk sa kanam. non c'est que comme ni ma la wax rek nga njaaxu moom daanaka rek utal ku mu bëreel boo gisee mu bëreel rek sax loolu la. loolu tax man du ma faral naa kii laa soxla wala kee maanaam samay morom moom bari na jaram xëy na sama morom mi ne ci nekk. mais dama leen di xaar rek mënu pare incha allah rabbi ma jëlal bëri même bu maanaam samay morom sax booy yi ku ci booy yi ñu bëri ñoom parce que booy ay mbër la nuy itam. te itam non du question may sens sax parce que tey jii tonnerre damaa bëri moom ma moo ma mag foofu njëkk ma ci lam moom ba muy bëri këtti deux moom maa ngi ci kaw di supporté yaa ngi dégg bu baax kon tey bu wëlbatee ko bëri man loolu mooy yoon wu yoon yoon boo ci faqtalo rek da ngay dellusiwaat te saa man sama yoon dama cee faqastalu ki ma faqastal ma bu ma amee sama morom damay bëree bu ma amee keneen koo xamante ci lam ji nekk itam mu ngi bëree mu ngi bëree itam damay bëree moom waaw. mais daal fi mu toll nii mënoo ñëw tuddal benn adversaire. fi mu toll moom parce que ñu war a bëri ñëpp dañoo am combat. mais mais a ngi fi. <laughs> waaw loolu am na loolu am na mais baal noonu rek xam nga mbërëm bu nee bu jógee ci défaite moom am na yu bari bu ko tuddee. da ngay defarwaat te pare non defarwaat bi mooy mooy entraînement yi moom fi ma fekk. man moom entraînement laa xam moo bu ma amee combat bu ma amut combat lépp yàlla xam na loolu loolu moom dafa nekk sama deret bu ma amee combat damay entraîné bu ma nekkut combat damay entraîné waaw comme nag dañuy sant nag bu baax a baax a baax waaw. seen poulain nekk nekk nekk ci contrat muy. dëkk bokk fu nu dëkk bokk nu fu nu juddoo baayam sama grand la kon kooku sama du sama poulain sama doom la li ma koy ñaanal nag mooy yàlla may ko ndam lu set buy parce que wax dëgg na combat bi parce moom chaque jour mu ngi mook ñeneen booy ak gaan sek mi ci war a bëree bari na booy am combat gis nga tur Mor Kanka dafa war a bëree bari ñu am combat fii mais dama leen di ñaana yàlla may leen ndam barka alxuraanu karim parce que man comme li ma nit ñi xamee rek man su ma bëree maa ngi ci ginnaaw booy yi su ma bëree maa ngi ci ginnaaw booy parce que saa boo ñëwee fekk ma ko waaw. kàddu gu mujj mooy di masawu ñi nga xamante ne nii rek ñoo ma doon jàppale jël seen xaalis def ko ci man waaw ku ci mel ni Ngumba Faye Omar Sène Modou Fall Basirou Diouf Elas sama goro Jib Guèye euh, sëñ maam ki xamante ne nii postu caaro la nekk mook ndongo ndaw mook ndongo ay jaaykati moteur la ñoom itam lu ne lan def ci man xaa bu bara noo may ci combat bi waaw ak sama président comme fi may fooye nii garam place boobu Mbengaas yëkkati xaalisam bu bari may nuyu waa garam place bépp di leen masawu leen xam ne nag lii jàngat la rek parce que xëy na Balla Gaye Junior moo ma ko defoon ba depuis ba boobee daa fekk 10 ans mu ngi soog di amaat dañu koy sant yàlla. di nuyu waa tërë yëpp bii mooy sama troisième défaite. waaw sama troisième défaite 16 combats. 16 combats laa am. bii mooy troisième défaite bi. yeneen komba yëpp dama koo daan waaw treize combat yëpp dama koo daan parce que boo gisee ay ndaanaan donc xam nga ku daan ay sos dëyin ay tafa siñoorin waaw ay yaroo baaxin ay boy fayin ay Aline Diobène ñoom ay ndaanaan kese laa daan parce que ñu gën a miti tonnerre ñoom laa daan mais bësëb ñàkk moom bësëb ñàkk la rek mais nag damay sant yàlla képp koo xamante ne sa benn dërëm def ko ci man di lay maa sant di nuyu waa Medina gépp ri tërés kera bi nuy génn sama yaram dafa daw te yàggu ma faa toxu di nuyu nekk foofu ku mel ni Fatou maa ngi koy son bu baax moo ko sama mag Khady Guèye ak Mbène ñooñu dañoo son togg yëpp noo ko noo ci nekk guddeeg bëccëg di nuyu waa retraite gépp waaw di la béggee tam parce que mënoon nga ne tey dama fay jaare jaar mooy loolu mais amul benn problème maa ngi di ñëpp di leen ñaanal lii dem ba doon télé incha allah rabbi waaw jërëjëf sama